asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ci ba ji dinañu daal di amal ñaareelu ndajeb conseil des ministres autolikaay bii di Sud Quotidien mu ngi xaar bu baax a baax nag ndaje boobu ndaxte tey ji mën nañu njort ne dinañu nag am ay coppite yoo xam ne dinañu ko nemmeeku euh, ci lépp loo xam ne dafa jublu euh, ci wàllu yenn ci ay kuréel yu nekk fii ci biir réew mi autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne conseil des ministres bi nga xam ne moom la ñu njëkk amal mën nañu ko duppee wàllu prise de contact wante tey ci bi nga xam ne kon jëwriñ yu bokk ci biir gouvernement wu Ousmane Sonko yi nga xam ne nag dinañu ko amal tey jii dina bëri ay dossiers yoo xam ne dinañu ko liñeertu suñu naataango yi sax daal dinañuy gëm ne tey jii la ñuy commencé nag di dëggal lépp lu jublu ci wàllu projet Bassirou Diomaye jaxaar Faye mi nga xam ne jaay na ko sénégalais yi ba ñu daal di koy jënd fas yéene kaa gunge ngir rek mu daal di koy taxawal ëccolikaay bii di point actu di xam xamle tamit ne tey jii ñu ngi xaar ñu daal di jël ay décision yu am solo jëmale ko nag ci yenn kuréel yoo xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi kuréel yu mel ni ACCT conseil économique social et environnemental wante it assemblée nationale suñu natango yi ne su fekkente ne dañuy tas lépp lu euh, ci wàllu ACCT ak conseil économique social et environnemental faw fële nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi daal di am ay député yu bëri nga xam ne nag ñoom ñoo ciy ànd wante loolu gëm nañu nag ne du yomb foofu nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale assemblée xamal ne faw ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi xaar ba ci weeru septembre moom moomu di njiitu réew ma Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye autolikaay bii di Le Soleil moo ñuy xamal ne tey jii tamit ña ngi koy xaar fa li nga xam ne moom mooy ca Mauritanie dafa fas yéene kon dem fa li nga xam ne moom mooy ca Nouakchott mu nekk nag tukki nemmeeku bu njëkk bi nga xam ne moom moo ngi koy amal ca bitim réew suñu natango yi di ñëwaat ci solo bi nga xam ne moom la tukki nemmeeku boobu am Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu fa jógee ñu ngi koy xaar ci samedi ji fa li nga xam ne moom mooy Banjul culikay bi di le quotidien moom moo ñu koy xamal suñu natango yi sax dañuy des ak ñoom ndaxte ñu ngi amal ab jàngat jëmale ko nag ci yenn ci ay génn yi nga xam ne nag kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba ñu ko tabee mu nekk njiitu réew ak léegi moom gis nañu ne la ko dalee feetub 4 avril bi nga xam ne ci levée des couleurs la ñu ko amalee ak tamit tukki nemmeeku ya mu amal te Touba ak Tiwaawan dañoo gis nag ni lu ñuy tuddee sobriété maanaam daal am benn xumbaay ak i mbumbaay dañ koy faral di nemmeeku nag ci li nga xam ne kon moom mooy génn yooyu loolu suñu natango yi daal di gis ne kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo ko digoon askanu réewum Sénégal te dafa mel nii ne ma ngi koy dëggal ñu desandi ak njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax teew colikaay bi di la mandat mi ngi ñuy xamal ne moom delloon ki fi nekkoon njiitu réew di Léopold Sédar Senghor bibliothèque bi nga xam ne kon moom la moomoon te mu nekk fa li nga xam ne moom mooy ca France bi di la mandat mi ngi ñuy xamal ne bibliothèque boobu de dañu ko naroon jaay foofu nga xam ne moom mooy ca France wante njiitu Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo daal di joxe euh, dogal ngir ñu daal di koy dakkal moom la mu bëgg sax moom mooy fexe nag ba mu bibliothèque boobu yëpp ñu daal di koy indiwaat fi ci biir réew mi ci lu jublu sax ci ki fi nekkoon jiitu réew di Léopold Sédar Senghor tey ji Henriette ñoo Kandé moom moo amal ab gëstu gu yaatu jagleel ko njiitu réew yi nga xam ne sax ñoom ñoo fi jot a nekk Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñeenti njiit yoo xam ne kon jot nañoo nekk ci bopp mi demandé ku ci nekk muy daal di xool jaar-jaaram ak tamit ban njëriñ nga daal di amal askanu réewum Sénégal mu tàmbale ko tey jii nag ci ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor moom mi nga xam ne kon ba ñu ko mu daal di nekk ci bopp euh, réew mi moom munul woon fexe nag ba jëlee réewum Sénégal euh, ci ay loxo colonisateur maanaam daal ci ay loxo ñii di waa France ci noonu sax ñu gis ne daal di nay jébbal nguur gi ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf moom moom nga xam ne it moom moo ko fa wuutu jéem na jéem wan wante it dafa mel ni ne mënul woon fexe it ba daal di tàqaliko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa France ba mu jeexalee nag ci bopp euh, nguur gi maanaam daal ci atum 2000 nguur gi ñëw na ci ay loxo ki nga xam ne de moom mooy Abdoulaye Wade loolu di ferndeel ne alternance am na euh, ci bopp euh, réew mi alternance googu Macky Sall gën kaa dëggal ci atum 2012 wante Henriette Niang Kandé la mu nemmeeku moom mooy ne ci ñeenti président yooyu yëpp askanu réewum Sénégal yàgg nañ cee wone seen bopp ndaxte moom mooy fal carte moom mooy folli te loolu la ñu di mës a doxal tey ji kon ci xët bu njëkk bi nga xam ne kon Henriette Niang Kandé daf ko jagleel ñeenti njiit yooyu nga xam ne ñoom ñoo jot a nekk ci bopp réew mi daal dina koy tàmbale ci ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor mu nekkoon premier président de la république muy ab dossier bu am solo boo xam ne mun ngeen ko yër ci page six sept ak huit bu ëccolikaay bi di Sud Quotidien ëccolikaay bi di Song bi ginnaaw élection présidentielle bi nga xam ne kon euh, moom la ñu fi amal ba ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu daal di koy tabb mu nekk njiitu réew jolikaay bi de l'info mi la ñu firndeel xam ne Ba mi nekkoon candidat wu Benno Bokk Yaakaar léegi nag tamit ne ci l'opposition bi mën nañ ci ràññee ñi nga xam ne kon ñoom ñooy waa Parti démocratique sénégalais sénégalais wante Idrissa Seck wante suñu natango yi la ñu gis moom mooy ne Idi la mu amoon démb ak barke démb dafa mel ni ne daf ko ñàkk bu baax a baax mën nañu ràññee it ci biir l'opposition bi ki nga xam ne moom mooy Khalifa Ababacar Sall nañu yoree port autonome de Dakar tey jii moom la autolikaay bii di yor yor bi daal di xëyee ndaxte yorin boobu muccul di yor yor bi ne kii nga xam ne de moom mooy Mountaga Sy la ka neex la def foofu nga xam ne moom mooy ca port autonome de Dakar ñu ngi ñuy xamal ne ci diirub euh, ñaar fukki weer Mountaga Sy daal dinay recruter lu weesu junni agent yoo xam ne la ca ëpp ñoo nga jógee ca Fuuta rax ci dolli da daan séddale ay oto 4x4 ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege ci biir port de Dakar mu leen di jagleel ay prime yu weesu nag fukki million loolu yëpp tey jiw colekaay bii di yor-yor bi di ci dikkaat laas yéen kaay moom di ñëwaat ci jafe-jafe yu tar yi nga xam ne ñii di hémodialysé yi ñoo ngi koy jànkonteel fa li nga xam ne de moom mooy ca hangar des pèlerins te mu nekk ca aéroport na rax ci dolli nag dafa naqaree dem ba pare amul benn karange amul ndox seen garab yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo dafa cher amuñu sax ambulance la ñu bëgg ci ni mu gën a gaawee moom mooy ñu jëlee leen foofu nga xam ne kon moom mooy ca hangar des pèlerins douane bu réewum Sénégal daal dinay dafati jaloore ginnaaw nag cocaïne gi nga xam ne fexe nañu ba daal di koy loqati ci suuf ab camion goo xam ne dafa duggoon fii ci biir réew mi coolikaay bi di 24 heures moo ñuy xamal nag ne douane bu Tanaf li nga xam ne moom mooy ca Kolda ñoom ñoo jàpp ay nit yoo xam ne kon dañ doon jéem a dugal ci biir réew mi ay faux billets maanaam daal xaalis bu baaxul juróomi milliards ci koppar gu baaxul la ñu jot a jël foofu nga xam ne kon moom mooy ca Tanaf suñu naataango yi du ñu xamal ne ñii di douanier yi ngir li ni mel war a mun a am def nañ ci liggéey gu mucc ayib li moo nekkoon mbokk jëlukat yi li gën a fës ci biir yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ce mercredi gouvernement Sonko 1 du nom donc de l'attelage gouvernemental mis sur pied sous le pilotage de Ousmane Sonko. Et à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, ce Conseil des ministres est très attendu car après le Conseil des ministres dit de prise de contact qui s'est déroulé le avril dernier, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et les membres du gouvernement vont se retrouver ce mercredi à la salle des banquets du Palais de la République pour entrer souverain, juste et prospère que le candidat à la présidentielle avait annoncé aux Sénégalais. Aujourd'hui, donc, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, entre formation des cabinets et autres promotions dans les différentes directions nationales, les choses sérieuses devraient s'accélérer pour la matérialisation du projet du président Bassirou Diomaye Diarra Nos confrères du journal eux aussi, s'attendent à des changements concernant donc comme le HCCT, le Conseil économique, euh, social et environnemental. Et pour ce fait, il faudra 3 cinquièmes des députés pour dissoudre le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. Et le PASTEF et ses alliés euh, sont loin du compte. Nos confrères nous parlent également de la dissolution de l'Assemblée nationale qui est certes possible, mais il faudra au moins attendre au mois de septembre. Ensuite, notons avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le président et de coopération aux enjeux multiples pour ces deux pays unis par la culture, l'histoire et la géographie. Et l'on nous signale par la même occasion dans le journal Le Quotidien qu'après Noachok, aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra aussi samedi à Banjul pour raffermir ces deux axes diplomatiques où les relations sont densifiées davantage par des politiques économiques soutenues euh, que rien ne peut désormais déconstruire. Il y a le gaz Restons avec nos confrères du journal Le Quotidien qui analyse les dernières sorties du président Bassirou Diomaye Diakhar et à en croire nos confrères, la sobriété reste le maître mot des nouvelles autorités. Deux semaines après son installation à la tête de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye imprime sa marque sans tambour ni trompette. Il déroule progressivement son plan de travail, sa prestation de serment, la fête de l'indépendance et ses du sceau de la sobriété. Restons avec le président Bassirou Diomaye Diakhar qui a rendu à Senghor ce qui lui appartient. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Mandat. Nos confrères nous parlent notamment de cette vente annulée du patrimoine livresque du président poète. ouvrages répartis en 194 devaient faire l'objet d'une vente aux enchères. Et sur demande du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ces enchères ont été reportées. Et justement, Sédar Senghor aujourd'hui euh, dans euh, Sud Quotidien. C'est Henriette Niang Kandé qui nous propose tout un dossier sur les quatre présidents qui se sont succédés à la tête de l'État. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, et Macky quatre hommes, un État. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une de ce dossier. Et aujourd'hui donc, Henriette Niang Kandé revisite les magistères de ces quatre chefs d'État sous ces différents régimes. La contestation a été permanente du fait de lhyper dominée par les doutes d'une nation naissante, elle demeure hésitante à rompre les amarres avec l'ancien colonisateur, la France. Sous le magistère de son successeur Abdou Diouf, la situation sera plus contrastée Promu à la tête de l'État grâce à l'article 35, il avait une marge de deux ans pour mener à terme le dernier mandat de son mentor Léopold Sédar Senghor. Et en en dépit de l'avènement de la première alternance démocratique et la grande ferveur qui a accompagné l'accession de Abdoulaye Wade à la magistrature suprême, la nature présidentialiste de l'État sous Senghor et Diouf ne sera substantiellement pas remise en cause. Avec Macky Sall, président élu en 2012, consacra alternance démocratique, la situation va perdurer selon Henriette Nyan Kandé. Elle ajoutera que Macky Sall a rendu les clés de la République deux mandats plus tard dans le contexte d'un Sénégal divisé entre républicains et patriotes. Et dans ce premier jet du dossier, intitulé Quatre hommes, un État, Henriette Nyan revient à grands traits sur le régime de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République. Toujours est-il que tout au long de son histoire, le pays a montré que quand

l'opposition. Cette opposition pourrait bien compter sur les forces libérales euh, symbolisées par le PDS de Maître Abdoulaye Wade, légué à son fils Karim Meissa mais aussi sur Idrissa Seck qui est en perte de vitesse et Khalifa Sall susceptible de passer le témoin à Barthélémy Diaz. La gestion jugée catastrophique au port autonome de Dakar, nous en parlons avec nos confrères du journal Yor Yorbi. Nos confrères nous font la chronique d'un pillage organisé, népotisme, de gré à gré, prime colossale accordée à des proches et surfacturation. Nos confrères nous font savoir qu'en 20 mois, Muntagassi a recruté plus de 1000 agents originaires du Fouta. En plus de cela, nous disent nos confrères, des voitures 4 x sont distribuées à l'appel, des primes de 10 millions octroyées chaque semestre à des proches du DG. Dans le journal LAS, nos confrères nous racontent le calvaire des du hangar des pèlerins de Yoff. Depuis gare des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Les hémodialysés sont dans le désarroi total. Ils sont confrontés à plusieurs difficultés comme l'inaccessibilité du site, l'absence de sécurité et d'eau, la cherté des médicaments, la non-disponibilité d'une ambulance et des cas récurrents d'infection. La douane sénégalaise a encore frappé fort après une saisie record de cocaïne. Cette fois-ci, nous disons confrères du journal heures, c'est 5 milliards en faux billets qui ont été saisis à Tanaf, c'est dans le Kolda. L'opération, nous disons confrères, a nécessité l'exploitation croisée de renseignements, de la surveillance et de la filature sur plusieurs jours jusqu'à l'intervention réussie des agents des douanes de Tanaf permettant ainsi de une bande de 4 millions en coupure de 50, et dollars, 4 millions en coupure de 500, 200 et 100 euros et 200 millions de francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.